dalee jàmm si numéro bu yees bu xam-xam mu wuteek États-Unis mi nga xam ne rab ci ghetto la juddoo Sénégal gi la nag ci li nga xam ne nag mooy ci taax la juddoo moom mii lee waaye nag animateur rajo yeeg télé yi ñoom ñoo ko fësal bu baax a baax yi nag ñoom ñoo ci gënoon taxaw mu mel ni nag rab bi le dafa am lu dellu siwaat lu fa amoon moonaam clash dellu siwaat bu baax a baax fan yi leen nii Mamadou luy clash clash wala bif xeetu rab la bu dee da nga bëgg a jaay da ngay xarab sa yeneeni rappeur ci sëb titre ña ngay songit ñoom it dañuy génne beneen titre daal lay tontu mu mel ni daal ay rime la ku jël rek jox sa morom waaye nag dinañ toll foo xamante ni bu dee rappeurs yu mag ñoom ñooy clashante askan wi déglu it dañ cay bokk bokk nag bu baax ci rap moom clash waral nag public bi sax dañ koy yàkkamti ndaxte bu kenn ki waxee rek dañuy xaar ka des tontu na mu gën a bu ñu jël misaal ci rap français ay jamono benn classe bu doxoon diggante Booba ak Sinik seen wax ak tontu yooyu demoon ba def sax ñaari rapport yooyu ñu bokk ci album yi ñu gënoon jaay ci hip hop atum waaye lu ci bari nag classe yooyu ngay dégg nag ci juboo lay mujjee waaye nag kenn du ci nangu ni man maa daanu classe underground it am na nag daanaka waaw wax nga lu am solo Abdou Khadre ndaxte kat ay bés yi nekkul diggante Dip Doundou Guiss wala ak Omzo Dollar gannaaw seen clash boo xamante ni defoon na bu baax a baax waaye bii yoon diggante rappeur bii di Hakill ak it BMG la ñoom ñaar nag ci internet bi ku ci nekk yàq nga sa morom lu mel ni xamee ci son Hakill bi boo ciy dégg moom dafa ni rappeur yi nekk ci Reptile Musique bokk ca Dip Doundou Guiss ñoom daanaka tekkiwuñu dara waaye gannaaw tontu du loolu dong nag moom moo waral coow lii lépp kon nag wax ji daanaka jaru ko woon. Euh, lan mooy taarix ak li nga xam ne moom moo gën a fës histoire bu rap. Sénégal gis nañ ni hip hop mi ngi fi ñëw ci at yi quatre-vingt maanaam boobu la fi wesaaroo bu ñu sukkandiku ci professeur français bi nga xam moo di Mamadou Dramé moom mi nga xam dafa jël benn étude boo xam ni dañ ko jagleloon tolluwaay musique sénégalaise te ka ko defoon moo di université sénégalaise bi nga xam mi ngi wuyoo ni dafa dugg ci Sénégal ci atum 1988 ci benn ndaje moo xam ne wàllu hip hop lañ ci doon waxtaanee sax conférencier bi moom dafa méngalu woon la amoon ba waral année blanche ndax dafa ni rap Sénégal ba muy dugg wala ba muy am doole dëgg dafay dajek élection législative ak présidentielle yi nga xamante ni moo amoon ci at moomee te la ko wundu bari na ca ndaxte gone yu bari dañoo bàyyi woon école ñii ñu dàqale ndaw yooyu nga xamante ne jaaxle woon nañ amuñu fu ñu jëm te rap musique di def temps yooyu break dance moo xewoon ak suma média yi ñu ci bari di ko wax di ko teg rawatina sax benn émission bu mag boo xamante génération 80 te doon daw ci RTS ki ko doon animé di Moïse Ambroise Gomis wala boog ay émission yoo xam ci rajo yi la doon jaar bu ci mel ni It Inter Sky wala boog Puissance FM te Aziz Koulibaly bu Dakar FM doon ko animé yooyu émission bokk na ci yi nga xamante ñoo gën a tax auditeurs yi xam lan mooy hip hop jamono ñoo daan jóge ci Amérique yi nga xamante en vogue daanaka moom rek lañ daan jël fii di ñu ko tegal ci chaîne locale yi ñi nga xam ñi tàmbali nag di gis di bëgg xeetu musique boo bile ba daal di dugg ci li nga xam ni moo di rap ndaxte temps yooyu instru rek lañ daan wax kon nag xaadu tey lii laa leen indiloon di leen jox di daje incha ci beneen numéro xam-xam